xamee ni euh, feebar bi euh, boobu ba tey lëmbe na àddina euh, gis ngeen ni def na weer ak lu tek ba ci télé bi danoo chamblé suñu ay programme bëccëg bi dañ leen di gunge ba midi 30 wéyal ko à travers ay rendez-vous d'information lépp rek ngir di sensibiliser di informer di décrypter ngir ngeen gën mun yeewu ci li nga xam ne ni moo di Covid 19 bi ba tax dañuy nuyu Chérif Dia mi nga xam ne ni fekk si nañu ci plateau bi comme tous les matins ci première partie bi Chérif ñu ngi lay nuyu. joxati la sa wàccuwaay. jërëjëf Pape ñu ngi lay nuyu it delloo la sa wàccuwaay yow it di nuyu mbokk téléspectateurs yi di leen ñaanal jàmm ci àjjumay tey ji di ko ñaanal ñëpp rawatina eh, képp koo xamante ni kon yaa ngi gëm diiney chrétien bis mi nga xamante ni bis bu sell ñu koy kon vendredi saint ñaari fan rek laata ñuy amal kon dimanche Pâques bi. tey nag day bis bu màgg ci diine boobu ndax rek gis nga ko daana dem ci église yi di ñaan di def sax ay chemin de croix ndax rek dafa am lu mu symboliser lu bari ak tamit loo xamante ni eh, yonent yàlla Jésus Christ donc dundoon na ko muy loo xamante ni kon ngëneel la ngëneel la nag eh, ndem sax métti woon na wante gis nañ njëriñ la tey ndax diine ji yaatu na fépp ci àdduna bi ñoom nag ginnaaw bin wooree lu toll ci ñeent fukki fan. Hmm. jeexal ko tey mu ñu daa Sénégal bu ci daa toll nag gis nga feet gu rëy la daan doon nga lax yi fu nekk. mais tey dafa tombé contexte bu métti muy crise euh, sanitaire bi nga xamante ni kon moom lañ dund di coronavirus bi. Hmm. Euh, euh, bi ci way ngëm yi mm-hmm. ñu daal di koy def rek ci kër yi euh, muy loo xamante lu am solo la parce que il faut magnifier geste bi nga xamante ne église bi def na ko mm-hmm. daanaka sax avant ñuy jël ay mesures ci wàllu état d'urgence ak yu ni mel mm-hmm. déjà moom jëloon na dogal ngir rek tere bépp daje ci église yeek jàngu yi muy loo ko lu am solo te loolu du bettul kenn ci kon moom mooy diine chrétienne ci taxawaay bi nga xamante ne kon mat gi nga xamante ne kon ak yi ñoom it dañuy dégg ndigal muy loo xamante ne kon ñu ngi leen di ñaanal ñoom it vendredi saint Euh, lépp loo xamante ni ñaanoon ko fi yàlla na ko yàlla nangu rawatina jàngoro ji kon ñu tàqali ñoog ñoom ba delluwaat ci nga xamante kon mooy yitte yi. taxawaayu jàngo bi euh, fii ci euh, Sénégal daañu ci ñëw xam na à travers ay reportage ci sunu ay jotaayu xibaar ak rédaction bu télévision Futur Média puisque saa yu programme wala événement amee dañ leen ci accompagner ci télévision Futur Média donc tey di ngeen dund li nga xam ne ni moo di vendredi saint ci télévision Futur Média koy euh, jot fi lekk ay minutes euh, comme tous les matins daañu dem fi nga xamee ni mooy ministère de la santé et de l'action sociale fekk fa euh, ministre bi ci boppam bu ko defee mu defal ñu point wu tey bi ñu xool tolluwaayu feebar bi waaye nag dama bëggoon ñu njëkk njëkkee ak sénégalais yi nga xamee ni ñoo nekk bitim réew dëgg la crise bi dëkk yëpp la laal waaye ñun ñu ngi xalaat suñu mbokk yooyu le tey ñu dégg ni am na ONG bu tudd sans frontières ñoom ñu Euh, lu toll ci 39 sénégalais euh, fanweer ak juróom-ñeent euh, ñoo faatu ci ay dëkk yu bëri li ëpp ci ay sénégalais yu nekk bitim réew yu faatu ña nga ca dëkk bu ñu naan France États-Unis itam ñu ngi ñuy xamal ni lu toll ci juróomi ñaari sénégalais ñoo faatu ca dëkk bu ñu naan New York di ay xibaar yoo xamee ni dégg nañu ko ñuy ñaan peut-être bu dee am na ay lim ay nit yu am. Euh, feebar bi tëdd ci ay dëkk wala bu amee itam ñu faatu baax na autorité yi euh, di ñu xamal euh, information yi ci war pour ñu xam ndombre yeeg ak ñi tëdd. Pape ni nga ko waxee noonu la te je pense que démb Amadou Ba ministre des affaires étrangères ak sénégalais de l'extérieur bi mu def point bi ñu ngi ko xaar quand même ci loolu ñoom ñi nga xamante ñoom ñooy état bu Sénégal ñoom ñoo war a joxe les vraies statistiques jëm ci doomu Sénégal yi nga xamante ni corona faat na leen wala sax bu fekkente ne beneen xeetu jàngoro moom moo leen faat ko defee kon du indi xeetu polémique yooyu parce que Horizon sans frontières benn ONG la boo xamante kon dafay nekk di yëngatu ci wàllu euh, migration euh, Boubacar Seye moom moo ko jiite wante bu fekkante ni ay statistiques la rawatina yoo xamante yu fiable la je pense que loolu ñu ngi koy xaar ci gouvernement bu Sénégal à travers le ministère des affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur ndax réew yooyu ngay wax noonu am nañ fa ay mission diplomatique du réew yu ndaw muy France immigré yoo xamante def na ko ndax mënoon na ci yokk li nga xamante kon moom mooy loolu su ko defee nit ñi mën xam euh, yan ñaata doomu sénégalais kon ñoom ñoo ñàkk seen bakkan jëm jekk ci li nga xamante kon moom mooy euh, jàngoro jooju beneen bi mooy comme ni nga ko ñu jara taxawulan ñu mérito taxawulan également ndax ba dara dul dara Euh, je pense que liñ dugal ci euh, économie Sénégal mu kenn mosu ko woon a mën a naatable ndax loo ñu ngi naan presque jege na 1000 milliards yoo xamante ni chaque fois donc te budget Sénégal daanaka 4000 milliards la daanaka kon boo ko xaajee ñeent benn ba. Euh, émigré yi nga xamante kon ñoom ñoo nekk bitim réew ñoom ñoo ko doon dugal ci koom-koomu Sénégal muy la am am solo yoo xamante ñu mérité leen respect leen ñu mérité ñu ñu mérité leen ñu jox leen seen gëdd leen parce que gis yi nga xamante ni moom la ñuy dund ci gis nañ ni plus en plus dafa am ay extrémisme loo xamante mi ngi fay am ay yoo xamante ni ñu ci bëri daana tax réew yi kon ñuy dund ay jafe-jafe rawatina beneen bi nga xamante moom leen gënoon sonal muy wàllu racisme parce que tamit réew yooyu gis nañ ni populistes yi ñoo fa commencé diriger et ba nga xamante kon lan daa am akas néew amun ko mais terewul ñi ngi am jom di liggéey di daan seen doole ngir rek lépp loo xamante ni ko ñu i je pense que comme ni ko ministre bi waxee dem ba milliards yooyu dana yegg fa mu war dem ndax jamono ji ñi nga xamante ni ñoom la wax moodu moodu dëgg ñi nga xamante ni kon ci secteur informel bi ay bitim mbagg lan daa demee ñoom ñoo gën a sonn ndax mënatu ñoo génn ndax confinement bi ñoo xamante ne amuñu këyit bëri ci ñoo xamante euh, maanaam amuñu këyit mais jël nañu leen ñuy liggéey mm-hmm. euh, donc loolu mënatul ne période yii nii moo tax moo tax ñëpp ñëpp leen ñëpp leen di mm, nga xamante kon ministre bi def na ko bi muy détaillé li nga xamante ne kon moom mooy plan bi jëm ci wàllu résilience pour euh, émigré yooyu bu ko defee kon ñooñu ngay wax noonu ñoom it euh, cité nañ leen ci ak ñi nga xamante ne également dem nañ ba à la retraite parce que li ko waral moom mooy kon seen euh, mënatuñoo liggéey donc muy jafe-jafe yoo xamante ni kon ñi ngi koy dund et je pense que ndimbal li dina egg ci ñoom su ko defee kon mu mën leen a soulager même sax mënul def lépp parce que fukki milliards ak boo xoolee population bi nekk ci diaspora bi takku nan mais je pense que mën nañ cee jàppee

waaw fan fan ko nekkoon keneen lañ koy jaay. te on ne sait jamais et cetera on ne sait mm. jamais moom moo tax loolu rek. mooy wàllu communication bi ñu wax je pense que euh, réew amul ñàkk waxtaanam il faut que kilifa yi gën ni kon ñoom ñoo nekk ci diaspora bi décision bi li ko gën a motiver mu bañ a nekk loo xamante ne dañuy toog dégg ko parce que am na ay organisation réew moo dem organiser nañ organisation boo xamante ni je pense que am nañ ay kuréel yoo xamante ni a leen représenter ci ay commission sax bu ko jaree su ko defee ñu gën mën a euh, lawal waxtaan wi. voilà en tout cas euh, yi. Euh, jóge ci kilifa yi parce que ñu ngi gis ay chiffres par ci ay chiffres par là euh, j'ai vu dans un euh, journal Tribune mu ne diggante Afrique Europe ak Amérique lu toll ci cinquante sénégalais ñoo faatu ndax coronavirus bi ministre bi wax na démb ni bu ñu moyul mën nañoo jëndal sénégalais yi ay bàmmeel ca dëkk ya ñuy faatoo am na ci itam ci période bi ay doomi Sénégal yoo xam ne ni faatu nañu ca dëkk ya ñu ne te coronavirus bi faatu leen loolu itam doon ay njàqare Euh, dafay juddu euh, jëm ci seen i njaboot jëm itam ca seeni mbokk ya ñu fa nekkal ak ñun ñi nga xam ne ni euh, ñoo leen di xalaat parce que ñun moom dañuy dem dañuy dem ak sentiment dañuy dem ak émotion yenn saa yi sax du ñu bëgg di xool lii yoon ak lu dul yoon dañuy dem ak émotion rek. fi ñu toll nag il faut ñuy xool li nga xamante moom mooy yoon parce que je pense que moom moo am solo te loolu euh, mooy li wax rek waxtaan moom moo ko war a walal il faut am na ñoo xamante si pour ñu comprendre il faut ñu leeralal leen ba mu gën a leer si seen bopp parce que bu ko defee kon ay xiini miini ak ay sikki sàkk du am ak rumeur parce que communication bi nit ñi gën koo renforcer ni koy defee mu bañ a nekk loo xamante ne rek day ascendante jógee ci kaw rek wàcc nii euh, de manière brutale donc il faut que ñi nga compliqué leen la lu rawatina ak jamono ji nga xamante ni quand jamono ji de stress la ñu dund pas ni nga waxee déjà confinement rek ñu daal la yemale ci bërëb yoo xamante xëy na xat na wala nanga mënoo génn mënoo dem déjà ñàkk nga lu bëri ci sa liberté bu fekkente ne également dolli nga ci stressu xalaat ni ëllëg boo fi wàccee liggéey mm. loolu lépp moom moo taxoon sax boo xoolee avant ñuy tëj frontières yi taxoon nit ñi doon daw di ñibbi si ko waraloon mm-hmm. mais réew mel ni Chine exemple ña fa faatu ñëpp kenn kenn dencu leen comme ni ni dencee koo xamante jullit nga wala chrétien nga mais dañ lay lakk et moom moo taxoon boo moo waraloon explication yu bëri ñu def ko. Mm-hmm. Mm-hmm. ñu dëjal la comme il faut euh, en tout cas loolu la ñaan euh, donc euh, commentaire la jëm ci sénégalais yi nga xamante xamante ni ñoo nekk bitim réew ñu ngi leen di xalaat am na ci ñoo xamante ni sunu borom suturaal na leen euh, peut-être ba seeni i dëkkuwaay yaatu na mais bëri na ci euh, ñoo xamee ni itam euh, dañuy dànqalikoo ci ay dëkkuwaay loolee itam doon lu metti boo demee ci yenn foyer même en temps normal cet gi franchement mooy loolu surtout ci dëkk yu mel ni France am na ci ay nit yoo xamante ni ñu ngi dëkk daanaka ci ay puxus yu ndaw yoo xamante ni foofee itam pour nga def fa confinement dafay metti mais bon malheureusement euh, situation bee laaj toog donc na ñëpp toog donte euh, dëkkuwaay yi yenn yi xat na parce que du yëpp xat am na ci ñoo xamee ni am nañu chance su wax naa ko léegi am ay dëkkuwaay yu euh, yaatu mais je pense plus à ces Sénégalais qui vivent limite ci promiscuité loole doon lu xaw a doy waar pour ñoom ñi nga xamee ni actuellement dañu nekk ci confinement total. muy lu métti Pape parce que comme ni nga ko waxee confinement moom euh, daanaka ab kaso la rek xëy na euh, liberté bi nga am mooy dinga mën a seetaan télé wala yaa ngi sa téléphone di jokkoo ñi nga xamante ni ñoom ñooy sa njaboot euh, je pense que dëkkuwaay yooyu aussi moom moo waral jamono ji buñ ca tollee xëy na bu fekkente ni confiné na ñenn ñi nga xamante ni dañuy dañuy xat-xatloo ci yenn barab yi moom mooy indi jafe-jafe yi moom moo taxoon sax nit ñi tiital Sénégal buñ nit ñi naan way nan toog seen kër wala nan confiné réew mi leen xëy na nun xamut li nga xamante ni mooy configuration suñ ménage yi fii ci Sénégal parce que la am ca Europe sax mënut a am fii Sénégal ba tax na kon du ñëw rek de manière brutale nii ne nañ confiné et nit ñi muy loo xamante ni kon du am solo la beneen bi mooy yaa ngi koy wax Pape c'est vrai que nit ñi ñi na ci ay nga ñoom ñoo nekk ci réew yi nga xamante ni ñoom ñoo jege ci Méditerranée bi mm-hmm. bëgg a dem Europe te moom je que loolu parce que yaa ngi euh, tayle sa bakkan mm-hmm. surtout jamono joo xamante ni nasaraan yi ñu ngi focaliser wu ci jàngoro ji Euh, gis nañ fi semaine bale passé am na ñoo xamante ni ñu ngi leen daal di fële ca Tenerife daal di leen fay sauver je pense que il faut ñu lancer un message aussi à la jeunesse ñu gën a toog dem si sax nit ñi waggaratun ci frontières yi comme ay Frontex et cetera pour xool ñan ñoo fiy jóge pour ba mën a dem Europe mais li gën a am solo rek moom mooy je pense que ku fekkante ne da ngay tukki nga xaar ba contexte bi changé nga jaaree ko ci yoon am say kayit yu wóor jël roppalaan dem moo gën ngay jaar ci géej bi nga xamante ni jamono ji daanaka surveillance bi demeetul noonu te ñu ci bëri ñu ngi ciy ñàkk seen bakkan ci ñi nga xamante ni kon ñoom ñoo ay doomu Afrique am na ay Sénégal mais am na ci yeneen nationalité yoo et je pense que message la boo xamante également kilifa yi nañ koy gën a lancé c'est vrai que ngi focaliser wu ci jàngoro ji mais yeneen phénomène yi ñi ngi fi loolu bokkul ci li nga xamante ni kon mën na saxal rawatina yaakaar ñoom. voilà on a même appris euh, hier euh, que am na ay xale yu doon jéem a euh, tukki di jaar ci géej gi. après da nga koy dégg nga ni mais ñii est sax ay nit lañu. non dafa am parce que bon dama dégg ay ndaw di ko wax loolu lu garaaw la je pense que nit ñi. war dama dégg sax ci information yi démb ou tey que am na gaal gu suux. da doon yóbbu ay xale bitim réew. ba léegi day ba léegi ngi ciy am na ci doomu sénégalais bu ñuy wax Awa bu fi defoon benn témoignage ci journal bi bëgg dem wax wax na ko beneen parce que ñoom. dañoo am na yoo xam mënoo su ko wax ci télé di ko dégg. parce que c'est très compliqué nit ñi di ko. Ah. li am solo rek mooy ne nit ñi gën a xam ni contexte bi tubaab bi ñoom li naan ba nga naan am ne fa lan mooy jéem a jëlee jàngoro ji ndax sonal leen rawatina mag ña. Hmm. donc ba nag euh, su ko defee buñ ci jógee nag nit ñi mën a continuer encore une fois même bu fekkente ni immigration irrégulière ñu koy wax immigration clandestine. Hmm. day loo xamante ni moom musul loolu ak ñu dem nañ ba di fa jaay ay nit yoo xamante ni kon ñaawlu woon nañ ko ay jamono et je pense que loolu il faut nit ñi aussi gën a ñi nga xamante ñoom ñooy ndaw ñi xam ni ñoom kat ëllëgu Afrique seen loxo la nekk surtout jamono ji nga xamante ni kon war nañoo mën a am fierté bu ñuy wax immigration pap parce que démb rek ñu ngi doon partagé benn vidéo boobu gis nga Macron ba mu demee fële nga xamante ni mooy ca Marseille mm-hmm. laboratoire bi nga xamante IH eh, bu nga xamante ni kon professeur Raoul gis nañ fa ay doomu Sénégal yi nga xamante ne nii. ay jàmbaar lañ te ñun c'est une fierté bu fekkante ne ña nekk ñëpp daanaka ñu ci bëri ay doomu Afrique lañ. Hmm. ji àdduna yëpp ngi teg gët ki nga xamante ne moom mooy borom xam-xam boobu ci wàllu médecine ndax am yaakaar ni lam am ca pexe mën na fay jëlee jàngoro ji ñu gis ñu ci bëri ñoo xamante ni ay doomu Sénégal lañ étudiants nekk fa ay stagiaires donc ñooñu aussi ñu ngi leen di nuyu xam ni Sénégal tey am na fierté ci ñoom hmm. ndaxte tey bu Euh, fan na ni fajee jàngoro ñu ne kat kenn am na ne wane na yoon yi mooy chloroquine bi nga xamante ni kon am nañ yaakaar ne mi ngi faj te fii professeur Seydi di ko jiite donc bu fekkee ne gis nañ ay doomu Sénégal yu bëri di ay ndaw nekk fa dem ba Macron di kaf ak ñoom et cetera donc fierté la donc muy wane ni kon Sénégal potentiel am na fii am na ci ñoo xamante ne compétence am na fi li li war rek mooy kilifa yi gën a jox gëdd li nga xamante ni moom mooy xam-xam ak éducation. voilà très intéressant en tout cas euh, merci euh, ñu ngi waaj dem fi nga xam ne nii mooy ministère de la santé et de l'action euh, sociale ñu ngi leen teg en repérage tey vendredi 10 avril 2020 10 heures 6 mooy doog jot donc ñu ngi xaarandi ki nga xam ne nii mooy ministre de la santé et de l'action sociale Abdoulaye Diouf Sarr bu ko defee mu defal ñu point u tey bi heure bi nag ñu bëri dañu ko jàppee résultat wu examen parce que dañuy xaar euh, tolluwaay bi yokku na yokkuwul ñan ñoo wér ñan ñoo continuer euh, di nekk ci euh, hôpitaux yi nga xam ne ni fa la ñuy faje ñi amee doomi jàngoro bi mais loolee jënañ ci am lu ñu leer léegi nii et puis bu ministre bi waxee ba noppi daañu déglu commentaire ki ñu fa teewal di Pape Fara Ñing puisque tous les matins équipe yu télévision Futurs Médias dañuy dem foofee ca ministère de la santé et de l'action sociale ngir taataan Euh, moo fay tukkee ci ay euh, kaddu euh, jëm ci évolution feebar bi bu leen fàtte mesure barrière la ko tubaab tuddee waaye moytandiku gi ñun ñëpp dañu ko war a respecter kon ñu déglu ministre bi ci bilangu tey je m'en vais vous faire la situation du jour ce vendredi 10 avril le ministère de la santé et de l'action sociale a reçu les examens virologiques suivants sur 195 tests réalisés, 15 sont revenus positifs. Il s'agit de 15 cas contacts suivis par nos services. 14 patients hospitalisés ont été déclarés guéris ce jour. Ils sortiront de l'hospitalisation tout à l'heure. L'état de santé des patients hospitalisés est stable. À ce 265 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 137 guéris, 2 décédés, 1 évacué. Par conséquent, nous avons 125 patients sous traitement dans nos, dans nos hôpitaux. Le ministère de la Santé et sociale exhorte les populations au respect des mesures de prévention individuelle et collective. ma lire leen situation wu tey bi tey àjjuma fukki fan ci weeru avril 2020 ministère la santé et de l'action sociale jot na résultat test yi ñu def ci téeméer ak juróom-ñeent fukk test fukk ak juróom ñoo ñëw positif bon ñoo am jàngoro bi fukk ak juróom yooyu fukk ak juróom la yoo xamante ne ay cas contact la yu ñu doon suivre ci suñuy service ñu yëgal tam ne fukk ak ñeent patient ñi xamante ne ñu ngi woon ci hôpitaux yi ñu leen di faj tey wér nañ bésu tey bi dañ leen génn hôpital ci bés bi ministère la santé de l'action sociale ñu ngi yëgal ne patients yi ñuy faj actuellement ñi ngi yëg tan ci seen yaram ñuy xayma ba mu commencé ba léegi ñaar téeméer ak juróom benn fukk ak juróomi cas la ñu fii ci senegal ci kaa yooyu téeméer ak fanweer ak juróom-ñaar wér nañ ci ñaar génn nañ àdduna kenn évacué nañ ko bon ndëkk tey téeméer ak ñaar fukk ak juróomi patient ñoo nekk ci suñu hôpitaux yi ñu leen di faj ministère de la santé de l'action sociale mi ngi demander populations yi ñu respecter bu baax digal yi leen di jox pour que xeex bi ñuy xeex Covid 19 ñu mën ko gagner nu mu gën a gaawe avant de terminer je vais effectivement introduire notre collègue monsieur le ministre Samba Sy ministre du travail du dialogue social et des relations avec les institutions pour communication. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Euh, oui, on écoute le ministre euh, Totomak, euh, oui, euh, Sambassi, ministre du Travail. je voudrais vous saluer et vous dire euh, que nous sommes tous à la fois solidaires et fiers de vous voir à la tâche, abattant un effort important au service de notre nation. Les répercussions économique de la pandémie du Covid-19 retentissent fortement sur le monde du travail. Les situations envoyées par les inspections du travail de la sécurité sociale indiquent une baisse significative de l'activité économique dans des secteurs tels que l'hôtellerie, le commerce, le tourisme, la restauration, les transports. De la crise sanitaire commence à générer des difficultés de plusieurs ordres dans le secteur de l'emploi, avec des réductions ou des pertes de salaire pour des milliers de travailleurs, consécutives à des mesures de chômage techniques qui, si l'on y prend garde, peuvent déboucher sur un cycle de licenciement massif. C'est pourquoi, Monsieur le Président de la République a inscrit dans le programme de résilience économique et sociale qu'il a conçu, un important volet relatif à la stabilité macroéconomique et financière pour soutenir le secteur privé et maintenir les emplois. En cohérence avec les lignes directrices de ce programme, Monsieur le Président de la République vient de prendre l'ordonnance numéro 1-2020 aménageant des mesures dérogatoires relatives au licenciement et au chômage technique durant la période de la pandémie du Covid-19. Les dérogations évoquées par cette ordonnance, dont la finalité est de préserver les emplois et l'activité économique, s'appliquent à toute mesure de licenciement ou de chômage technique décidée à partir du 14 mars 2020. L'ordonnance numéro 1 2020 vise, dans les limites la durée de la loi d'habilitation, d'une part, à interdire le recours au licenciement et d'autre part, à garantir un revenu aux travailleurs mis en chômage technique. En substance, l'ordonnance comporte les mesures ci-après. Premièrement, interdiction durant la pandémie du Covid-19 dans les limites de temps de la loi d'habilitation de tout licenciement autre que celui motivé par une faute lourde du travailleur. Deuxièmement, obligation pour l'employeur, afin d'éviter le chômage technique, de rechercher avec les délégués du personnel des solutions alternatives telles que la réduction des heures de travail, le travail par roulement, l'anticipation des congés payés le redéploiement des personnels, le travail à temps partiel. Troisièmement, garantie d'une rémunération pour le travailleur en chômage technique qui ne saurait être inférieur ni au SMIC ni à 70% de son salaire moyen net des trois derniers mois d'activité, en contrepartie de mesures d'accompagnement de l'État au profit de l'employeur. Enfin, quatrièmement, obligation pour le travailleur en chômage technique de rester à la disposition de l'employeur pour d'éventuels travaux ponctuels. Telle est l'économie de l'ordonnance prise par M. le Président de la République pour préserver les emplois dans le secteur privé. Euh, mbas mi nga xam ne moo dal ci àddina laawale na Sénégal jeexitalam ñoo ngi koy commencé yëg ci entreprise yi ak ci wàllu xëy bi ba tax na président de la république ci plan de résilience bi nga xam ne jël na ko am na pàcc bu am solo boo xam ne mu ngi koy jagleel fexe ba bërëbu xëyukaay yi bañ a suux mais fexe ba ñi ciy liggéey continuer di am seeni payoor loolu tax na président de la république jël na benn ndogal ci alarba bi weesu di juróom-ñetti fan ci weeru avril ndogal boo xam ne ay ponk yu am solo mënees na ci mënees nañ ko ci jukki bi ci jiitu mooy président de la république nee na ci waxtu wi nga xam ne ñu ngi dund mbas mi tere nañu bépp dàq liggéeykat ci biiru entreprise te loolu nag mu ngi tàmbali ci fukki fan ak ñeent weeru mars ndax boobu pour mu mën a am rek li koy mën a lal mooy mu am lu ñuy naan faute lourde ñaareel bi mooy président de la République dogal na mais kii xëyle maanaam employeur bi dafa war a jéem kën kattanam fexe ba chômage technique bañ a am pour boobu chômage technique bañ a am dafa war a wut mook ñi nga xam ne ay ndaw liggéeykat yi la ay alternative maanaam ay pexe yoo xam ne mën na tax liggéey bi continuer pexe yooyu mënee na lim ñu wàññi diiru liggéey bi ñu def liggéey boo xam ne dañ koy ay ayloo mbaa ñu xëcc congé yi mbala ñu yóbbu liggéeykat yi ci yeneen i poste de travail loolu lépp pour jéem a fexe ba ñu jéem a rëcc ci chômage technique ñetteel bi mooy bu fekkee ne chômage technique mënta ñàkk nañu jàpp ne képp ku ñu yóbbu ci chômage technique sa njaati gi maanaam ki lay xeeloo lim lay fay mënul néew benn SMIC bi mënul néew tam téeméer boo doon am juróom-ñaar fukki da koy am ba mot te loolu nag dafa war a daw ci diiru feebar bi bi mu nekk ñeenteel bi mooy président dafa dogal liggéeykat bi comme même bu toogee chômage technique dañ koy jox lu am solo ci peyooram dafa war a déglu may gët may nopp ki koy xëyloo bu ko bu ko woyee soxloo bu ko wooyee mu mën a wuyu ci lu gàtt def liggéey bi nga xam ne dañ koy sant loolu daal ci lu gàtt mooy ndogal bi nga xam ne président de la République jël na ko maa ngi leen di gërëm leen di sant Euh, ginnaaw euh, ministre de la santé et de l'action sociale euh, ñu ngi doon déglu beneen jëwriñ di Samba Sy ministre du travail du dialogue social et des relation avec les institutions mu doon wax laal gi nga xamee ni pandémie bi laal na ko ci wàllu liggéey fii ci Sénégal avant ñu koy commenter mën nañu desandi foofee ci ministère de la santé et de l'action sociale fekk fa ki nga xamee ni moo di Alhassane Ba Alhassane ñu ngi lay nuyu tey comme démb amaat nañu ñaari jëwriñ Tine euh, ministre de santé moo njëkk a wax ñu euh, toftal ci déglu ki nga xam ne ni euh, mooy ministre du travail yan commentaire wala ban commentaire ngay indi ci point wu tey bi Alassane mu ngi noonu Pape Cheikh ñu ngi lay nuyu di nuyu téléspectateur yu télévision Futur Média gis ngeen ko li nga xamante ni xew na fii fii ci ministère makkaanu jëwriñ jor wàllum wér-gu-yaram tey nag dafa dalal ki nga xamante ni moo yor wàllum xëy fii ci réew mi xam nga booba léegi bi mbas mi euh, dikkee fii ci suñu réew président de la république am na ay jéego yu am solo yu mu jël ngir fexe ba askan wi ci seen bopp am dundit bi nga xamante ni moo war wante itam ñu fexe ba ki nga xamante ni day xëy itam euh, ñu mu mën a euh, am li nga xam ne mooy le minimum euh, ci li nga xam ne mu ngi ko doon am ci temps normal moo tax tey nag jëwriñ jor wàllum xëy dikk ngir wax li nga xam ne moom la président de la république jël muy ab ordonnance ordonnance numéro 1 2020 fàttali na ko moom jëwriñ ji Samba si ne mooy mesure déroga dérogatoire ci wàllum euh, xëy wala boog ci wàllum euh, chomage technique wala ci licenciement kon dégg ngeen ko amul kenn ki nga xam ne tey yoon may na ko mu dàq liggéeykatam euh, ci li nga xam ne jamono ji ñu nekk ni lii di chômage technique itam liggéeykat bi am na loo xam ne war na cee bàyyi gët ki nga xam ne moo koy xëyloo euh, ci wàllu soxla bu ko soxlaa jamono junee war na tontu euh, ci loolu nag war na koy fay jamono junee lu toll ci téeméer boo jël juróom-ñaar fukk yi muy ci salaire am wante itam li nga xam ne mooy SMIC bi waru ko weesu kon loolu mu nekk lu am solo li nga xamante ni président de la république jël na ko mu jëm nag ci li nga xam ne ay mesures yu am solo ci wàllum xëy fii ci réew mi fàttali nga ko Pape Cheikh président euh, plutôt jëwriñ jor wàllum wérgu yaram ñu am mu nekk itam ay cas contact suivi mooy li nga xam ne tey jii jot nañu euh, nekk wala boog jot nañu laalante ak ki nga xam ne am na doomu jàngoro ji cas contact yooyu nag gis nañ ne depuis démb ba léegi Pape amuñu li nga xam ne mooy kaa communautaire sant ci yàlla bu baax nag ndax Euh, amoon na benn jamono joo xam ne fan yi weesu rek euh, tiitoon nañ ci ndax liñ ci nemoo ci nemmeeku woon ci kaa communautaire yi mu ngi fii nag ci ay gox euh, xibaar yi nga xamante ni jamono ju ne taskatu xibaar yi ñu ngi koy joxe ci bërëb yi nga xam ne ñu ngi fii ci ndakaaru muy ndakaaru mi nga xam ne jàpp nañ ni sax mooy épicentre feebar bi fii ci Sénégal ndax am na téeméer boo jël juróom-ñaar fukk yi ak juróom benn ci ñi nga xam ne ñoo amee doomu jàngoro ji ci loolu nag gis nañ ne ay gox yi ci mel ni Yoff Plateau Médina Wakam am nañu li nga xam ne ay cas communautaire la mu nekk loo xam ne nag war nañ cee taxaw xalaat ci bu baax a baax def ci euh, saytu expert koy def wante tamit askan wi ci seen bopp war nañ cee bàyyi xel bu baax a baax ndax jàpp nañ ne li nga xam ne mooy cas communautaire yi moo jaaxal wala boog moo tiital ñi nga xam ne ñoom la seen xam-xam màcc ci wàllum feebar bi. gis nañ ne tey Sénégal boo defee xayma am nañ lu toll ci ñaat téeméer ak li nga xam ne. juróom benn fukk ak juróomi cas ci xayma li nga xam ne am nañ ko depuis le 2 mars ba léegi ñu gis ne euh, ñi nga xam ne ñoo tëdd ci lalu hôpital yi ba léegi ñu leen di topp di leen faj toll nañ ci téeméer ak euh, ñaar fukk ak euh, juróom mu doon cent cinq cas yoo xam ne jamono ji ñu ngi leen di topp kon gis nañ ne booba léegi euh, ñu ngi ci benn euh, moyenne boo xam ne wala boog ñu ngi ci benn lim boo xam ne booba léegi mu ngi ciy tourné ndax guérison yi ñu sant ci bu baax a baax occasion la ci ñun sax ñu delloo njukkal ñi nga xam ne ñooy la personnel soignant mooy ñi ñii di faj gis nañ jéego yu yi nga xam ne yu am solo ñu ngi koy def ñu ngi wax ne sax Touba ñaari cas yi fa desoon jot nañoo wér tey jii danañu dell ci seen i dellu ci seen i njaboot mu doon loo xam ne kon am na solo loolu euh, li nga xam ne ragoloon nañ ko ci bërë ci gox boobu tey na ci ndox mu sedd saafaral nañu ko ni mu ni ñu ko sàkkoo woon ginnaaw yi nga xam ne ñaan booba léegi ñu ngi koy amal kon Pape Cheikh ci xayma lii moo fi jot a xew nag euh, ci makkaanu jëwriñ jor wàllum wérgu yaram ñuy xaarandi nag benn waxtu jot ñu ñëwaat ak yeneen xibaar itam di ñaanal suñu mbokku catholique yi euh, yàlla euh, nangu seen i ñaan tey jii xam nga moo tombeek ak vendredi saint muy njeexitalu seen i koor ñu leen di ñaanal yàlla nangu seen i ñaan yëpp nangul leen seeni i koor gis nañ ne ren mi mbas mi nga xam ne jamono ju ne ñaan yi ñu ngi wëy ngir yàlla teggil ñu ko teggil ko ci àdduna bi wërngal këpp ba su ñu euh, koom ak suñu doxalin suñu dundin dellu ni mu meloon euh, boobu ba léegi nag xam nga ni euh, ñaan yi du jeex nag Pape kon lu dul lu ñuy def rek mooy ñaanal leen xam nga ne tey di nag ngalax du am xam naa ne yow ab jàlloo bëgg nga ngalax wante nag dañuy wax rek suñu mbokk dañal mu dimbali ñu rek même bu ngalax amul sax waaye ñu prévoir ko ñu defaat rattrapage année prochaine incha allah si Al assan xam na ni boo déggoon wolof moom euh, dinañu am problème euh, dégguloo wolof mais yaa ngi lakk wolof et commentaire yi am na solo ndaxte di nga ko expliquer ba euh, téléspectateurs yi comprendre ko je rappelle que yaa ñu teewal tey euh, foofee ca ministère de la santé et de l' sociale wax nga ko bu ca kanamee tombeeg benn waxtu jot euh, dinañ la fa fekkaat cib jotaay boo xamee ni daañu ci ànd ak Faty donc Chérif ministre de la santé wax na ministre du travail wax na di ñaari jëwriñ yoo xamee ni kenn ku ne comme démb wax nga parce que ministre yi nga xamante ni portefeuille yi ñu yore wala yi ñu jiite dafay laale ak feebar bi c' est bien quand même ñu ñëw indi ay explication pour si nekkul conférence de presse yoo xamante xëy na am na laaj yoo xamante boo jàkk ay nit jàkkaarloo ñoom wala ñu ubbi téléphone a nga xamante moom yor wàllu pap ñu gis ko rek point bi nga xamante def na ko ci test yi def dafa mel test yaa ngi gën jëm ci kaw parce que ci tey kon def nañ lu toll ci téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom di test bañ ci jógee nag fukki ak juróom ñoom ñoo ci positif maanaam kon ñoom ñoo am jàngoro ji mais ñoom nag ay cas contact lan yoo xamante ni kon jege woon nañ ñi njëkk am jàngoro ci ñu ngi leen doon suivre muy loo xamante ni comme ni ko Alassane waxee kon l' mooy démb ak tey macha allah amoon li naan contamination communautaire jëm rek ci wàllu woowu te tamit am na ci ñeneen yoo xamante ni également fukk lan ak ñeent di 14 ñoom wër nañ ba ñibbi seen kër muy loo xamante ni kon lu am solo la buñ sukkandikoo ci kër jëw leen jiñ dénk wàllu wér-gu-yaram kon fi ñu toll nii 65 doomu aadama yoo xamante kon ñoom ñoo positif ca ñoom nag am na ci téeméer ak fanweer ak juróom-ñaar di 137 yoo xamante kon ñoom wér nañ 125 ya donc ñoom it euh, ñu ci kon muy loo xamante lu am solo la bu ñu kon ci jëwriñ ji dénk wàllu euh, euh, ko waxee waxoon de la maanaam may ko ay maqaama yoo xam xamante ne kon yokk na ca yam amoon bi nag kon ci këru liggéeyukaay yi la ko njëkk a tàmbalee moom président Macky Sall jëm rek ci ay modification yu nemmeeku sax ci code du travail ci article bu code du travail jëm rek kon ci précarité maanaam ñu jéem a rek ba nga xamante kon précarité maanaam yenn jafe-jafe yi ci wàllu këru liggéeyukaay yi ñu bañ koo am looloo tax kon ñu jël ci ñeenti ponk yoo xamante moom sàmba si del si waat na ci jëm rek ngir aar gi moom moo sooxee jëm rek ci conséquences yi nga xamante ni épidémie bi am na ko fii ci Sénégal wax na ko sànq. bi ci njëkk mooy amul benn njaatige boo xamante ni am na maqaama dàqab liggéeykat te tegu ko fenn képp képp koo xamante ni dàq nañ ko fekk nga firndeel ko maanaam boo ko deful dañ koy considéré comme nul et non avenu maanaam nga xëy rek dàq nit ci xëy na moom defut njombe bu fekkente nag def na faute loolu du moom mënees na ko dàq mais bu ko defut amul maqaama moom dàq ko loolu wax na ko également ci li nga xamante ni moom mooy payoor yi aussi ci rek chômage moom ministre bi daan na ciy dellusiwaat waxaat nga xamante ni rek mooy barème bi ci wàllu rémunération loolu aussi ñu daal

borom kër yi aussi am na loo xamante ni yaakaar na ngir dundal seen njaboot mais ñi nga ñi leen di fay it également nekk nañ ci ay difficulté ba tax na kon euh, concertation bu wér la laaj ba déggoo am. voilà euh, donc euh, au moins ñoom jóg nañu pour sécuriser li nga xamante ni moo jëm ci wàllu liggéey ndax jeexitalu pandémie bi ci liggéey bi dina doon lu doy waar crise économique la borom xam-xam yi wax dina ci am ay entreprise yoo xamante ni ñaanuñu ko yàlla waaye mën nañu dem sax ba fayit ci bërki démb am na reportage boo xam ne ni euh, seetaan naa ko ci euh, télé bi euh, bi rédaction bi demee teeru bi c'est-à-dire directeur bi ci boppam buy wax ak ni bërëb bi wéete nga xam ne dañ daan fees fees foofu daan fees del ñuy gagné tous les mois ay milliards nga gis ni autour de lui y personne moom mu ne écoute gagnétul dara il a demandé au personnel de de de rester eux et actuellement cinquante pour cent seen salaire la leen di fay maara day taali mën nañu dem sax ba dootul am lu leen fayee ci saa si ma yërëm ko et du foofu rek daanaka secteur yëpp wala bërëbu liggéeyukaay yu bëri actuellement seen lépp a taxaw. seen lépp a taxaw surtout secteur boobu ñu wax noonu mooy ñoom ñoom ñu nekk ci wàllu hôtel yi ñu nekk ci li nga xamante ni mooy restauration bi ñu nekk ci transport aérien bi ak yeneen secteur yoo xam ne même agroalimentaire gis nga ko ñi nga xam ne même ñooy agriculteurs yi ñu doon jaay ginaar dégg nga leen ñoom it parce que hôtel yi ñoo doon jënd ginaar yi nga xam ne moom lañ leen jar donc mel ni jàngoro ji bàyyiwul benn secteur pap d'activité fii ci Sénégal même ki gën a ndaw di marchand ambulant bi mbir mi touché na ko donc je pense que comme ni ngeen waxee sikkim moo lakkandoo c' est très compliqué la situation. c' est très compliqué. aujourd'hui bu ñu leen imposer ñoom employeurs yi surtout ñu nekk ci secteur privé bi ne nañu fay euh, au salaire bi euh, dina ci am peut-être employeur yu loo wax ni fan lañ koy jëlee. tu vois. waaw looloo tax moo tax man la ministre bi malheureusement seen déclaration yi du am eh, c'est pas un peu interactif su ko defee laaj yooyu nga laaj c'est question pertinente boo xamante ni mu ko laaj eh, ki nga xamante kon moom mooy jëwriñ ji dina am occasion ngir def ko. Mm. su ko defee eh, gouvernement bi tamit parce que loolu état aussi mooy loolu ko quand parce que emploi aussi day loo xamante ni dafa tumburanke woon fii yi yokk croissance ci wàllu économie je pense que préserver ko am na solo wante tamit ñi nga xamante ñoom ñooy employeurs yi ñoom mhm. ñu daal di leen di gunge ci wàllu moo tax euh, mille milliards yooyu ñuy wax encore une fois je pense que am na ci loo xamante état bi parce que comme état bi garanti na loolu je pense que dina accompagner ñi nga xamante ñoom ñooy le patronat su ko defee ñu mën a fay ñii di wàllu liggéeykat yi parce que bu ko deful wàllu douane la tamit euh, dégg nañ directeur général bi ne euh, am na yoo xamante ñi ngi ko doon jëlee bitim réew bu fekkente ne ci jàpp nit ñi la jëm lañ ci daa def ci wàllu ay taxes ak yu ni mel ñu ngi li nga xamante mooy accompagner leen su ko defee lay do am ci be wàllu géey également ngir fay ñi nga xamante ñoom ñooy liggéeykat yi ñu yombalal leen yenn yi mm-hmm. et puis accompagner leen encore une fois ñu nit dañuy plaider pour la presse parce que ci la nekk il faut que <laughs> waaye loolu waaye li fi nekk fii ci presse je pense que ndaw na trop Pape il faut que ñu gën cee ñu gën ko xoolaat également bañ ko tuddee sax aide à la presse tuddee ko leneen parce que aussi les de presse aussi ñu ngi souffrir ah. bon euh, c'est vrai ah. <laughs> de toute façon euh, en tout cas crise bu doy waar la coronavirus la xaw ma Covid 19 euh, ndax domaine boo laal rek indi na fa ay problème domaine yëpp que ça soit culture que muy sport que muy que muy musique domaine yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp ci diine bi diine ji euh, kay parce que yaa crise bi mhm. jàng yi doon am parce que nit ñi doon am ci seen doon doon am waykat yi ñi nga xamante ay waykat lan doon am ay spectacle et ci wàllu diine ah. mënatoon ko def comme li nga wax dafa mel ni bàyyiwul dara bàyyiwul dara bàyyiwul dara bàyyiwul dara mais bon yàlla baax na en tout cas ñun euh, on fera maximum di sacrifier ci télé bi. Mhm. Euh, di ci waxtaan di ci sensibiliser di leen ci informé ba mu daw bàyyi ñu fi ndax loolu la ñuy ñaan. mu euh, ngi lay gërëm bu baax euh, Chérif Dia ci jàppandal geek décryptage bi nga xam ni da ñu koy jagleel ci suba gi ci télévision Futur Média pour que ñu gën yeewu ci li nga xam ne ni moo di Covid 19 combat bi nga xam ne àddina ñoo ko tàmbali dig daje gi ak yéen ca kanam lay doon ci diggu bëccëg gi ak rédaction bu télévision Futur Média. incha allah Pape ni nga incha allah tant que ñi ngi am kattan bi moom dinañu wéy di def li nga xamante ni moom mooy suñu liggéey parce que en guerre la nekk guerre nag buñ ca nekkee ku nekk wàll wa nga nekk eh. je pense que war nga caa mën a moom moo soxla te bu Sénégal soxla lépp lu jar ci sacrifice ko xeeb dañ koy gën yokk parce que moom mooy suñu waleef donc ñu profité également ci vendredi saint bi ak weekendu Pâques bi encore une fois di ñaan yàlla mu daal di rek euh, jëlee fi li nga xamante ni moom mooy jàngoro ji donc encore une fois chrétiens yi également ñu ngi leen di sooyate Pâques bu am solo ñoom voilà xam naa ni Pâques wi clos la ñuy def ren malheureusement.